bismillaahi rahmaani rahiim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki senegaal mbokki àddina bi di def vidéo bi rekk jëme ko ci sunuy mbokk di ay ñayu xare di jàmbaar di boroomi taxawaay yu rëy yu rafet yu nu wuutu ñi bëgg lu baax ñépp ñi nekk ci réew mi muy maam Makhtar Gueye bu Jamra ak ñi mu seqal liggéey bi yëpp ci Jamra moo xam moo xam ñi mu seqal liggéey bi ci direct la wala ñi mu seqal liggéey bi ci indirect la li tax may def vidéo bi nag mooy dama gis ñeen nat ñoo xam ne ñu néew lañu ci biir réew mi ñuy jóg di leen attaquer waaw yéen xanaa diw ngeen yàpp lu tax diw lu tax diw lu tax diw may wax maam maxtar ne defe naa yooyu du la yëngal du yëngal ñi nga àndal du yëngalit ñi engagé yépp nekk ci réew mi ngir défendre défendre sunuy valeur sunuy mbaax sunuy mbatit waaye du tey ñu wan leen ne li ngeen nekk sax leen ci donte yéen yéen a ngi ci bopp ba léegi ndax am na loo xam ne ci réew mi du toog naan qaala allahu qaala rasulu moo koy dindi waaye am na lu ñu teg ci réew mi ñëpp seq ko loo rekk a ko mën a dindi ndax boo ne qaala allahu qaala rasulu am ku ne qaala ma sàmba qaala ma demba waaye am na fu mbir di tollu faaw li ñëpp bokk jóg ngir saafara lu mel noonu te Jamra acte yi nuy posé ci wàll googu yëpp di ko dalee ci dénoncer bu laajee ñu war a porter plainte ñu porter plainte du ñëpp am courage boobu noonu léegi nag am na koo xam ne nii du dafa am problème ak euh, Masamba wala ba mais yow mii xeex lu bon la amal problème loola waral loo man di yëkkati lu mu noobul noobul lu mu rafet rafet lu mu baax baax ci réew mi dana taxaw dal ci sa kaw ndax moom daal mere na la mere na la point ñu mel noonu nag li alxuraan di wax rek. leen di wax mooy muutu bi xaysikum am na loo xam ne boo ciy mer ak nit danga nga mer ba dugg bàmmeel te du ko wàññi dara te la muy xeex dana wéy di ko xeex l'essentiel kii def te la muy def jëmmu yàlla ji dong tax loo rek a am solo ba tax na kon ki jóg naan waaw lu tax ñoom diw ñoom diw yow lu tax yow Jamra yëkkati na plainte jëmee ko ci ku wax wax ju ñaaw wala mu jëf-jëf ju ñaaw ju ñu baax ñëpp di ñaawlu ndax ku ñu fi porté plainte fekk na ay junniy sénégalais am dënn bu tàng am xol bu metti ca kooka jëfam wala waxam waaw léegi moom bu fekkee Jamra porté na plainte nga ne ko xanaa diw la yëpp xanaa diw moo amul bàjjen ci réew mi xanaa diw mooy kumba amul ndey waaw léegi yow mi nga xam ne nii Jamra porté na plainte kii yow demal nga porté plainte kële sëñ Ahmad daam Ndiaye al imaam yàlla na ko yàlla dëgëral mooy wax ni ku bëgg a féete diine ji fépp day mujj doo ko féete fenn waaye yow góor nga ne waa jambra doonee góor góor góor nag laa wax li Serigne Cheikh Tidiane si almaktum daan wax ni waxuma kuy takk mais góor laa wax góor yow góor nga ni waa Jamra doonee góor bi waa bi waa Jamra amee courage ba porté plainte ma sàmba mais yow nga naan lu tax ma dem ba porté wuñ ko plainte yow demal nga porte ji plainte waa ma dem ba waa Jamra nekk fii nga nekk fee waaye yow nekk ci sa ginnaaw clavier lu ñu def nga naan lu tax defuñu nangam lu tee yow nga def nangam googu nekk ci sa ginnaaw écran lu ñu def nga ne lu tee defuñu nangam lu tee yow defoo loolu daa yomb lool nga toog ci sa kër nag reer ba suulu suur taal sa téléphone di critiquer wala nga añ ba regg taal sa téléphone wala nga yor sa clavier di critiquer waaye bu dee li ngay wax ñor na la nekkal ci terrain bi ni ci waa Jamra nekkee bi waa jamra di dem di yóbbu pelant di paas joxoo leen paas bi ñuy dem di tàppe ay pelant ci ay sibeer ak feneen ak kayit ya ñuy bindeek lay bind pelant ba ci seen poos la jógee jógewul yow ci sa poos bu ñuy déplacé wu di def tournée di dem ci Sénégal di sensibiliser wala di informer kilifa yi kilifay yi diine ji ci li xew àndoog ñoom yow daal mënoo lu dul toog naan lu tax ngeen def lii te bàyyi la li waaw léegi yow bu kii defee lii defal le ba tax na di leen wax ne waa Jamra fi ngeen ko teg foofu képp la loolu mooy solos wax ci sax mooy bu leen gestu bu leen téen bu leen xool ndeyjoor bu leen xool càmmoñ en avant en avant en avant xaw ma ñan de mais képp ku bëgg lu baax te yàlla dong ñor la amul leneen loo ci rax ci een boo jàppal nit acte yi ngeen di posé nii ci défendre mbaax gi ci réew mi valeur yi dana ànd ak yenn sant pour cent yeneent bi nag gannaaw sallallahu alayhi wa moo jaaroon day joor am nu jaar càmmoñ lu yenent bi amuloon nag sallallahu alayhi wa sallam ku jug di ut lu baax ne danga ko am loolu du mën a sotti ba tax na di wax maam maxtaar jarul sax léeg-léeg ñen nat ngay tontu ci seen yennat defal li nga war a def yàllaa ngi gis rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi gis te ñi gëm yàlla danañ ko gis noonu la ko yàlla waxee ci alquranul karim jëf leen yàlla dana gis rasulullahi dana gis ñi gëm yàlla danañu gis ba tax na lenn la loo xam ne nii ñu bari amuñoon courage bi ngir def ko yéen bu ngeen amee courage def ko ci li mujj ak la jiitu yépp ku leen santul nag waratu leen a xarab loolu waral bi ma gisee ñenn na te ñu tuuti lañ nag waaye nag ñu tuuti ñooñu léeg-léeg du tee rek ñu yëkkati kàddu ne leen arrête nag ndax ma Mame Makhtar li mu def ñëpp la ci wuutu en tant que kenn ci ànd sàmm jikko yi ñu bokk liggéey bi mbir mi amee dama yëkkati téléphone woo ko ne ko lii kat ànd sàmm ko yeeg kuréel yi nekk ci biir yëpp ñu ngi ci sa ginnaaw ndax liggéey bi noonu la séddali ko am na loo xam ne nii ci biir réew mi bu jugee ànd sàmm ko yi lu ma téeméeri kuréel ak nàngam ñu ngi ci mais du ñoom ñooy nekk ci kaw porte ko mais benn kuréel ci biir kuréel yi nekk ci ànd sàmm jikko yi moo koy porté am na loo xam ne ci daara ji dañuy wooyu waa aar daara am na loo xam ne ci valeur yi dañuy wooyu waa jamra am na loo xam ne waa défense valeur valeur morale la ñuy wooyi am na loo xam ne nii ligue des imams la ñuy wooyi mais am na loo xam ne nii tamit ànd sàmm jikko yi moo koy jëlal boppam lii nag bi mu jógee ñëpp dañ ne jamra bismillah yaa ngoog ñu ngi ci sa ginnaaw doxalal boo gesoo gis nu te noonu lañ koy defee ba fii mu toll nii kon nañu xam ne ki jug naan pour pourquoi diw bàyyi diw ak diw yow kay da nga waroon wax ne waruñ ko woon a wax dara ndax li mu wax aayu loolu moo doon wax ji wax ju jub ji damay bëgg léeg-léeg le temps nit jug ne lii ngeen di xeex ni aayul dara nekku ci nga indi ay preuve walay euh, lu mën a convaincre ñi lay seetaan ak déglu luy wane ne lii ñuy xeex dara nekku ci waaye tout le temps lan ngay dégg du ñoom kese pour pourquoi kii bàyyi kële pourquoi ñii bàyyi ñële wax jooju nag wax ju xeebu la ma delluwaat waxaat waxu sëriñ Cheikh ji góor nga ñii xeex loolu góor na góor lanu waaw yow tamit waneel sa ngóore nag ñii bu ñu taxawee ci x yow nga nekk ci y waaye dafa lu yomb lool yow yaay toog di commandité xeexkat yi naan leen pourquoi ngeen def bi bàyyi bale wax jooju wax ju xeebu la wax ju doyadi la ba tax na loolu moo doon kàddu yi di daanelaat di wax waa Jamra jërë ngeen jëf thank you merci jaaraama jokko njal fi ngeen ko teg foofu la na dëgër hakaza hakaza hakaza wa illa falala nii la nii la nii la lii la lii la lii la bu dul lii du lenn bu dul nii du nenn seen mbokk Makhtar Sarr wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.